ñu ngi nuyu jullit yëpp di nuyu imaam Cheikh Fall ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi imaam bi fi nekk yëpp euh, ak sunu jëwriñ bi di sëñ Xaadim ñu ngi nuyu ñëpp ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne dañ koy def ci wàllu ju julli gi di gërëm vraiment toutes les populations de Guinaw Rail yi nga xam ne ñu ñëw fii tey taxaw di jiite julli gi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di baalu ñëpp àq aussi parce que tamit euh, bis bu baalu àq la bis bu baax la incha allah. ñu ngi aussi wax rek ne concernant la campagne électorale bientôt mu commencé commencé na sax d'ailleurs mais loolu yëpp rek nañ ko def ci fulla ak fayda rek def ko aussi ci responsabilité ak dignité aussi mais aussi respecté li nga xam ne mooy sàtt réew mi ku ne li la li la yoon teg nga mun ko tegoo bañ a jàdd benn yoon euh, population yi nga xam ne ñoom ñooy atte vraiment ku ñu yàlla defal ñu teg la fa ñu xam ne kooku la ñu poteel si kàttanu yàlla